asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum euh, internetu euh, DS Prod USA yéen ñu safoo di seetaan suñu chaîne ci biir réew mi moo xam nga nekk bitim réew États-Unis wala feneen ak feneen parce que DS DS Prod USA dafa nekk fii nii rek euh, pour jox information yu leer bégal internet yi aussi maanaam ci lépp daal léegi nag ñu ñëw def taxaw seetlu taxaw seelu ci lan ci mbir mi nga xam ne mi ngi lëmbee jamono ji moo di lan moo di euh, série infidèle ku wax série infidèle xam ni jamono ji nii am na benn séquence boo xam ne tourné woon nañ ko wone woon nañ ko ba ñëpp jot nañ ci muy séquence lu leen a boobu noonu lëmbee jamono ji ba nga xam ne ku nekk mi ngi jug euh, def ci taxaw temm di ci wax voilà tey nag ñu ñëw fii nii ci suuf pont yoof bi war a jox euh, ku wax yoof tamit wax ni ñoom ñooy borom ndakaaru bokk nañ ci ñi moom ndakaaru voilà léegi dañ leen di jox suñu micro rek bàyyi leen euh, ñu jox ñu joxe seen xalaat maanaam seen avis ci li nga xam ne moo xew jamono jii li comme niñ leen ko waxee rek ba léegi ñu ngi poursuivre suñu taxaw seetlu ñu ngi nii toog suñu benn papa xam naa ni dañ koy dégg suñu micro mu wax ci lan mooy xalaatam papa nuyu nañ la. ñu leen di fay di leen gërëm di am taxawaay si yéen vraiment kontaan nañ si yéen yéen journalistes yi ñu ngi kontaan si yéen di am bëgg si yéen parce que vraiment li ngeen di taxaw si dëkk bi am na solo trop. parce que yéen président daf leen di soxla lépp di leen soxla imam di soxla lépp lépp ñu ngi nekk seen ginnaaw parce que yéen war a defar dëkk bi taxawal dëkk bi lépp dox waaw loolu léegi xam nañ ko mais dëkk bi léegi dafa am changement temps maa ngi déglu journal maa ngi déglu journal di am naqar ay xale yu jóge si école di taal seen i euh, seen i yére ak seen i bagage li ko waral mooy dañu waroon def benn jeu foofu euh, ba euh, benn baal boo xam ne ba nga ko woon def foofu réception daal maanaam léegi may ñu leen ko rek kontaan ñu ñu yàqate foofu loolu man maa ngi koy ñaawlu ñun suñ jamono amuñu ko woon ñun bu jëkkoon dañ euh, respecté suñu waajur yi ragal suñu waajur yi mais xale léegi dañ ñemañ seen waajur yi parce que le problème man ñun ay jamono suñ gisee daal di gendarme yu nekk ci porte bi wala yëre tini yu ñu teg si ligne ji rek dañu si am tii tiitaange dañu dañuy nëbbatu daw wala nga ji sa maître mu wër na kii moo lay jàngal même bu la jàngalu sax bu ngeen bokkee kuur bi rek dangay ngay daw nëbbatu ji parce que li mu bëgg mooy devoir pour mu dugg sa bopp mais léegi da ngay gis sa maître bi lay jàngal les effets que il faut nga ja euh, xuloog moom wala nga kii ko mais léegi da ngay waar fu ñu jëm léegi ana xam-xam bi léegi ah bu jëkkoon da ngay ñaari jàng moo am da ngay jàng nasaraan nga jàng diine alxuraan boo jàngul fi jàng fële dañu la may dee temps nga dem fubali wala seetaan newetaan mais léegi xarit yi yaratuñu man bëgguma sax bokk ak ñoom léegi c'est honteux man daal man daal doy na waar dama yaakaar ne axrul usmaan lañ nekk mujj jamono fa lañ nekk parce que suñu ñi may jàngal wax dañ ko mujj jamono lu ne nga gis parce que ne mujj jamono wañ si boppam dina wax mooy kon téléphone bi boo ko man j boo ko am naa 12 ans mais boobu manqué enregistré nañ 12 ans wañ bu ñëwee rek di wax rek xamal ne axrul usmaan la mooy téléphone yi téléphone léegi day dem ba Amérique itali lépp sans fil yaa ngi koy dégg nga ko moom wax ma la wax ma la téléphone sax léegi da ngay jàkkaarloo nit ki mooy lanati xam nga nu ñu ko waxati sax muy wax ak yow face à face mais yooyu affaire yi day na waar kii la yëpp kii maan la léegi mais day na waar léegi amatul benn complexe amatul benn complexe jigéen si boppam moo war a ormal dëkk bi jigéen góor topp si parce que jigéen mooy lépp moo ëpp lépp waaw wasalaam maa leen di gërëm di leen nuyu gën leen góorgóorlu si li ngeen kontaan naa si maa ngi door a yor micro nii nii nii yaakamti woon naa ko pour wax lii sama soxla mais billaay kontaan naa na ngeen jëm ba sa kanam yàlla yàlla fay leen tabaarkalla macha allah jërëjëf lépp lu ci dund laal xam naa ne du ci man lépp lu ci ñaaw du ci man billaay maa mel noonu barke Cheikh ma dëgg rek laa bëgg dëgg rek laay wéyee barke Cheikh. macha allah dégg nañ suñu papa li mu wax lu am solo la di leen fàttali ba léegi ñu ngi ci li gën a tax ñu génn ci ci mbedd mi Euh, dégg suñu micro euh, ñi nga xam ne mooy sénégalais maanaam mooy euh, seen yi nga xam ne moo fi jot am ci série léegi ndax gis nañ paa bi li wax bu baax a baax a baax li mu wax noonu yëpp lu lu am la lu tegu la maanaam fit bi xale yi àndal léegi nii maanaam ñoom jamono yooyu noonu amuñu ko woon waaye xam naa ni balaa ñoo tardé dañuy dem gisi ji suñu yaay booy nii rek posé ko quelques question ci li nga xam ne moo xew léegi bismillah waaw bisimilah yaay booy ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax. waaw euh, yaay booy comme nañ ko laajee suñu papa ji gis nañ ni jamono jii nii dafa yàqu surtout li nga xam ne moo gën a fës ñu koy médiatiser maanaam euh, film yeeg série télévision yi te bu ñu xoolee seeni jamono mën nañ ne daaray Kocc ñoo fi nekkoon da doon suivre ak seen seen njaboot ñëpp ci kanamu tele bi waaye léegi xool nañ ba xool ni mënatu leen ko ñu bëggoon nga ànd ñu si maanaam nga wax sa xalaat ci ni nga gisee série léegi ak li nga xam ne moo moo moo lëmbee jamono ji léegi. waaw comme ni ko ñëpp ñëpp a ñaawloo rek laa koy ñaawloo parce que jamono ji ñu toll nii ñoom théâtre tuñu dañuy jaayu boo koy seet ñoom dañuy bëgg a buzz waaw te ñun bu jëkkaan. théâtre danga ko daan def nga ci jàngale mais léegi yow dangay seetaan théâtre ba théâtre bi ñëwee doo si jàng dara xale yi léegi am nañ fit respecté tuñu seen ay waajur xale yi daal mu ngi noonu daal ñuy ñaan rek yàlla rek xanaa yàlla soppi leen rek te télé série télévision yi ñuy def si si télé yi kenn rafetlu ko ñëpp a ko ñaawlu ñëpp a ñaawlu comme di ko ñëpp a ñaawloo rek noonu laa ko ñaawloo waa dëgg yàlla parce que ñun tamit ay borom jaboot lañ waaw te dañ ne wan ñu sa xale yi tey ñooy doom magu ëllëg te ñun dañoo tiir si xale yi jamono ji ñu toll ñu dañoo tiir si xale yi waaw xanaa ñu ñaan yàlla rek yàlla albati leen rek jubal leen waaw parce que xale yi bu ñu jubee dañuy ñop noppal seen ay way wayjur ñun dañuy noppal moo tax ñun dañuy ñaan rek yàlla albati leen rek teg leen si yoon jub rek ñoom ñëpp rek loolu la ñaan yàlla. waaw dégg nañ euh, suñu yaay booy euh, joxe na ci ay conseils wax na li nga xam ne mooy euh, xale yi ni ñu dëkkee léegi ak leneen ak leneen ba ñaan na ni maanaam di ñaan yàlla ndax yàlla rek lañ mën a ñaan jamono ji parce que yàqu na ba léegi ñi waroon yare ñoo ñoo ñoo ñoo yaruwul loolu la. léegi xam naa ni kon dañuy dañuy dañuy jaajëfal euh, suñu papa ji ak suñu yaay booy ji euh, di laaj suñu yaay booy mot de la fin bi rek maanaam dernier conseil bi muy jox jeunesse bi. xanaa xale yi gën a góor góorlu si école bi rek ndaxte jamono ji ñu toll nii jamonoy jàng la te balaa nga koy xam si kanam si xanam ngay xam ne jàng am na solo ñun ñi bañ doon jàng ba ñu xamoon ne jàng fii lay yóbbu nit dañuy gën a góorgóorlu waaw ñu jàng rek laa leen di diggal. waaw góorgóorlu rek jàng respecté seen ay wayjur waaw loolu rek laa leen di diggal. waaw dégg nañ suñu yaay booy nee na léegi xale yi nañu góor góorgóorlu bu baax te yaakaar naa loolu mooy dëgg bu ñu góorgóorlu rek mën a jàppale seen njaboot di jàppale seen bopp aussi seen seen seen seen seen parents yi jàppale seen bopp aussi pour mën a euh, sàmm seen avenir waaw xam naa looloo nekkoon taxaw teelu euh, teelu teelu ci li nga xam ne moo xew ci jamono ji ñu toogoon ak suñu benn papa ak suñu benn yaay booy di leen ñaanal euh, gudd fan ak wér euh, di leen di leen jaajëfal bu baax a baax baax baax merci beaucoup. waaw ba tey ñu pour euh, poursuivre suñu micro trottoir ba léegi ñu leen di fàttali ñu ngi wax ci thème bi nga xam ne mooy série infidèle li nga xam ne moo jot xew jamono ji lëmbee lëmbee lëmbee lëmbee Sénégal gi yëpp ba ñëpp di ci wax fépp fu ñu toll. voilà tey ñu ngi nii nag ak euh, ki nga xam ne mooy Medoune Sonko don coordonnateur Pastef deuxième coordonnateur Pastef bu Ouest Foire ñu ñëw fekk fii ci suuf pont Yoff bi ñu bëggoon ko dégg suñu micro trottoir rek euh, mu joxe xalaatam en tant que en tant que en tant que homme politique en tant que aussi responsable waaw euh, Medoune nuyu nañ la. ñu ngi lay fay frère. waaw ginnaaw bañ la nuyoo tamit umpuloo ni tamit yaa ngi ci réew mi yëg nga ni tamit lii débat bi. maanaam série infidèle ak ki nga xam ne mooy actrice Lena Gueye lu ñu def maanaam dañ naan euh, Evenprod lu ñu li ñu fësal muy li nga xam ne gars yi ñu ngi koy ñaawlu ñu bëggoon laaj sa position ak loo ciy xalaat ak lan ngay conseil jeunesse bi ak ñi nga xam ne ñooy def loolu frère euh, maa ngi leen di di leen ziar bu baax série infidèle maa ngi koy seetaan euh, di xool leena li muy def koi mais Sénégal daal dafa toll benn moment boo xam ne kenn xamatul fooy teg sa tànk parce que tamit bu ñu demee ba di wane ay ay cëru doomu aadama ay sénégalais ay sénégalaises di def loo xam ne nii ci série yi mais franchement parler ñun ñoo war a defar Sénégal ñun jeunesse bi aussi dañoo am ay doom am ay xale yoo xam ne nii mënoo leen a maîtriser mënoo xam yow ban heure la ñuy seetaan télé parce que yow doo yendu ci kër gi seen yaay yi duñ fa yendu ñoo bon yi ñoo fay nekk donc n'importe quelle heure mën nañoo taal télé yem ci genre scénario yooyu noonu mais des fois yow doo comprendre sax ñun ñun ban dëkk lañ nekk dañoo roy tubaab yi ba léegi moom yaakaar naa ne li ñu sañ def sax tubaab yi sañuñu ko quoi di seetaan ay ay ay string yoo xam ne ñu koy wane loo xam ne yow danga ko doon dégg rek mais dañoo dem a dem a dem ba Sénégal man man dama tiit quoi man man Médoune man dama tiit ci Sénégal te franchement parler télé yi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que aussi tamit mënuñu ñëw balaa ngay seetaan dara di ko wan askan bi di ko seetaan mais da nga koy xoolaat bu baax parce que imagineel nga toog ak sa doom boo xam ne nii yaa même pas cinq ans nga gis ko muy seetaan ay série yoo xam ne ay ay fuunante ay raayante ah ñuy wane seen sexe yi yow après ñooñu lan nga leen mën a conseiller say doom frère il faut il faut télé yeeg rajo yi ñu xoolaat bu baax li ñuy def daal parce que affaire yi daal dafa mujj déborder daal kenn xamatul actuellement Sénégal ban réew lañ nekk yow ñun lu ñu sañ def sax suñu doom yi mais man man dama jommi quoi grand moo tax télé yi tamit yéen man yéen laay waxal daal parce que tamit yéen yéenay moom seeni télé yéenay wane loo xam ne nii askan bi yëpp dañ koy seetaan parce que bu ñu demee ba tey ñu bàyyi télévision yëpp di jéem a use li nga xam ne nii mooy suñu culture sa waay nag war nañ ci mën a di wane wane wane loo xam ne nii xale yi dinañ ci mën a defaru dinañ ci mën a defaru parce que loolu mooy mon man mooy jàngat bi actuellement métti na daal il faut télé yeeg rajo yeeg ñu ñu xoolaat daal ñu xoolaat bu baax li ñuy wane askan bi di ko seetaan parce que xale yi moo tax fii ñun ñëpp ay responsable leen ñun ñëpp am ay doom soo demee ba benn instant yow boo da ngay tiit sax zappe sa télé yem ci loo xam ne nii yaag sa doom yéen a di ko seetaan nga war a xam ne foo ñu xool daal lu ñuy def daal mon frère waaw ñoo ko déggandoor li nga xam ne moom la Médoune yëkkati kàddu yi jëmale ko ci jeunesse bi ak ñi nga xam ne ñooy def euh, jëf yooyu la maanaam télévision yi maanaam ñi nekk ci wàllu média bi ñëpp la wax en général voilà loolu noonu tamit euh, dégg nañ ko bu baax a baax mu doon ay conseils yoo xam ne yu jara yu bàyyi xel yu mat a jëfee la aussi voilà di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di ko joxaat micro yi pour laaj ko mot de la fin am waaw di interpeller sénégalais yi rek di wax ne leen ñu ngi jëm ci ay élections na jeunesse bi ñëpp dem wuti seen i carte déposé ñu waajal vote yi te di xam ne aussi tamit man en tant que coordonnateur Pastef Ouest Foire maa ngi woo sénégalais yëpp ñu jàpp ci mouvement Pastef di déglu bu baax Ousmane Sonko parce que xam nañ ne moom franchement parler ñun daal moom la ñu gis daal pour le moment waaw Macky Sall moom dama leen di ñaan yéen télé yi sax. télé privé yi quoi ku ko ci mën a boycotter na nga ko boycotter parce que du dara daal franchement waaw man du sama président man man du sama président nangulu ko ko quoi franchement parce que ñëpp xam nañ ni mu doxalee ci élection yi ku sàccee élection nag di nga toog mais difficilement may interpeller sénégal yëpp ne ñëpp wuti seen i pièce d'identité ne ñëpp voté nañ ko xeex ñun ñoo moom réew mi ñun ñooy jeune si Sénégal nañu xeex xam ne ñun ñun ñoo moom suñu réew Macky Sall moomu ko nañ ko fi jëlee nu mu gën a gaawee maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. waaw ñu ngi lay gërëm yow tamit eh, jaajëf eh, Medoune Sonko eh, déglu nañ li ko wax baax a baax a baax baax kon sénégalais yéen a ko déggandoo nañu jëfee lépp li nga xam ne mooy lu baax lépp lu bon ñu sànni ko préserver li nga xam ne mooy suñu culture sujet tabou yi nag ñu tegee ko na la jaajëf merci beaucoup Medoune. waaw ba léegi ñi ngi wéyal suñu micro territoire ñi ngi fii nii ci suufu pont yoof commune de Yoff voilà léegi ñu ngi nii jàkkaarlook benn jongo ma xam naa ni dañ koy posé question yooyu noonu rek comme ni ñu posé yeneen ñi maanaam ci série infidèle maanaam euh, li muy lëmbee jamono ji euh, suñu jigéen nuyu nañ la. maa lay fay bu baax. waaw euh, dafa mel ni su ma juumul yaa ngi seetaan série télévision yi xew ci télé yi bu ci gën fës nag di infidèle gis nañ infidèle tamit li muy lëmbee jamono maanaam euh, seen bi leen a Gueye euh, di wone maanaam ay colin yu yu bon yi daal maanaam waaw léegi ñu bëggoon la laaj euh, noo gisee loolu ak lan mooy ci taxawaayu sénégalais yi aussi. xam nga léegi jigéen ñu bon ñoo yàq jigéen ñu baax ñi ndax gis nga gis tey jii jigéen joo xamante ne day ñëw si góor di ka di ka saratu wala ñu jigéen yoo xamante ne dañuy ñëw di ut. ku leen may doole daal mais nit ñi dañuy dañuy jàppane comme si ñu bo ñu bon ñu ñoo yàq ñu baax ñi ndax léegi kenn óolootu fi kenn ndax nii ñu ñëpp war nañoo jàppale suñu bopp ndax jigéen ñëpp yamuñu dañ naan jigéen ñëpp payam ndax góor ñu bon ñu tamit ñoo yàq góor góor ñu baax ñi jigéen ñu bon ñoo yàq jigéen ñu baax ñi ndax léegi nii am na benn benn comportement bu ñu war a doxantee suñu biir ndax lan ñu xam lu ñuy def bu baax ñu xam fu ñuy teg suñuy tànka na ñun ñi ay ndaw lañ demaguñu fen ndax ku nekk boo boo xamee li ngay def rek doo sonna ndax ku nekk nit ku nekka daal ñu ngi lay séddee si gaalu xaj mais bu mu yàgg bu muy fekk ngay toog di lekk ndax nit ñu ngi ñaan moroomu nitam ñu jàppale ñu si bu baax na sëriñ yi daw fii moom moo fa dëgg yàlla du dëggat yoon war nañ see kaas ñu génne ka dëkk bi ndax instant yi dafa toll ji mu jamono joo xamante ne fii nii. dafa bëri ñoo xamante ne dañuy wax wala dafa bëri ñoo xamante ne dañuy yàq der da ngay gis jigéen génn fi 3 heures du matin seen kër balaa mu fi duggaat asamaan mooy set alors que jigéen ñeneen moroom jigéen ñi mën nañoo def loo xamante ne comme seen moroomu jigéen lu ñuy def am ñoo xamante ne xamuñu lu xiif xamuñu luñ mar rafle mais du leen tax ñu jaay seen boobu mais am ñoo xamante ne mar naan bu leen taxee naan potin rek bu tijjee da ngeen mais am na ñoo xamante ne nanka nanka la rek mais xatar xatar fajul dara da nga def nanka nanka tempo tempo ba am li nga bëgg mais tey jii di fi gis góor goo xamante ne da nga koy ñaan xaalis mu ne la balaa ma la jox xaalis bi lii di ma ko defal mais dañ naan góor yi léegi nii da da dañ lay may nga may leen mais am na si góor ñu baax mais am na góor ñoo xamante ne dañ naan dañ leen may ma may leen mais boo boo ma boo ma mayul la may da nga gis ko ngay da am soxla instant nga ñaan ka sax mu ne la kañ dem suñu kër wala mu ne di foog ne yow loolu ngay dundam alors que loolu noonu sa ngor du la ko may mais yàlla boo tasee sa waajur mu feebar nga xam ne waajur moom rek nga am surtout ma waajur bu jigéen waajur bu jigéen tey jii bu wàññeekoo rek yow nga yëg lu bari sa àddina ndax lan fii nii gis nañ fi ni ñoo xamante ne dañuy dañuy dund ay dund dund bu métti ah dund bu tar dund bu métti dund bu tar mais ku ñu wax sa problème nga fàtte sa bos mais série yi ñu ngi ñu ngi ñaan muy leena man yor naa sa benn vidéo boo xamante ne métti na ma lool na jigéen ñu baax ñu yàq jigéen ñu boñu tey jii dinañ fi nit yoo xamante ne day dox nii ñu kii dafa bon li nga am benn comportement boo xamante ne da nga koy comportement ñu ne kii dafa bon wala kii leneen na leneen leneen alors que du loolu moom li muy def ah li muy wax nekkul benn ndax instant yii ñi ñu ñuul ñoo mel noonu ndax ñi di wax ak ñi di def nekkuñu benn ndax tey tey tey jii da ngay gis nit koo xamante ne da nga koy gis nii mu ne fii la duggoon tey jii dañ siy wax ne dëgg dañuy gis ñoo ñoo xamante ne dañuy dugg si néeg nii kenn du xam lu ñuy def sax ñu génnee ñu ne def nañu bon te ñoom ñaar xamuñu xamuñu lanaa lanaa lan ñooy mais am na jigéen ñoo xamante ne mën nañoo maîtriser seen bopp mais am na jigéen ñoo xamante ne ñu ngi xalaat ëllëg am na jigéen xamante ne am nañu ay noonu na fii ñëpp a fi am ay ay noonu série yi moom dafa dëgg yàlla infidèle dafa ne dafa nekk n'importe qui xale yëpp a koy seetaan xale yëpp te ñoom moo tax xale yi léegi dañ yaaxu yaxeet xale yi léegi ñoom ñëpp dañ yaaxu ndax ndax lan série ñuy seetaan ah novelas sax novelas sax yi yooyu noonu tamit sax si la bokk te da ngay gis xale yoo xamante ne novelas fu mu commencé rek dañuy dem seetaani ka jaral na leen infidèle ñu ka dem seetaani ka léegi sax si téléphone yi la gën a bonee ndax dañ koy jël def ay ñu jàpp ko ko ñu ko jàppee seen téléphone après loolu ko seetaan ndax loolu dinañ gis ay doom yoo xamante ne dañ leen di tëj si biir si biir kër buñu dara bu leen jotee dañ naan fan lañ koy defee alors que ñoom liberté bi ngi leen may ax bu ax bu génnee lu ñuy def nekkul benn moom moo tax léegi am na jigéen ñoo xamante ne dañuy dañuy yor am na xale yoo xamante yor ay téléphone ñoom xale yu yor ay téléphone bu ñu leen may foo xamante ne dañuy ibbi ay Facebook lu si mel ni WhatsApp TikTok yooyu yëpp day yàq ay xale ndax lan li ñuy gis li ñuy gis si TikTok li ñuy gis si Facebook bi ah lu ñuy gis lépp day yàq ay xale ndax lan tey jii dañu war a da dañ war a joxe bon exemple na am na mag yoo xamante ne ñooñu war a jox benn bon exemple na tey jii ku nekk mu ngi ñaan yàlla fi nga jaar sa doom jaar foofu mais am ñoo xamante ne ñu ngi ñaan yàlla fi fi ñu jaar seen sama doom bañaa jaar foofu ndax liñ naan liggéeyu ndey añub doom ndax lépp dañ ko war a def nanka nanka na ku nekk boo sàmmee sa doom rek doo soon na ndax nit gis nañ fi nit koo xamante ne day dunda mu métti ko tarap tamanu si dara ba dëgg yàlla mais jàmmaa yàlla dogalam ñun ñoom ñu ngi ñaan yàlla ñoom seen ñuy def noonu ñu dimbaluñu te yàlla a tax ndax jii gis nañ fi xamante ne day sol sol bu bon ñu ne alors alors que loolu la mais ñun ñoo yàq ñu ñu baañ te da nga ji ñoom tey dañuy sol affaire bu ses lu bon wala léegi dafa xew si dafa xew si jamono da ngay gis ñoo xamante ne dañuy wax si nit lu bon loo xamante ne moom mooy loolu ba fa dëgg yàlla na tey jii ñaan nañ yàlla daal ñun ñëpp tegu si bon exemple ñun ñëpp na ay ndaw lañ demaguñu fenn tollooguñu fu ñuy am bay ñàkka ba fa dëgg yàlla nañu xam lu baax siri fi ñu koy tegee si téléphone bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, merci beaucoup dégg nañ li nga xam ne mooy kàddu ndaw ndax euh, ndaw ci Séné ndaw ci réew dara la ndax mooy avenir kon bu buñ déggee soxna si li mu wax bu baax a baax ñu xam ni euh, Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi yàq waaye lépp lu ñu yàq rek am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi defar ndax gis buñ déggee waxam ñu xam ne kii ku mature la aussi kuy ñaaw li nga xam ne dem na ba tudd ci novelas voilà parce que ñun léegi yaakaar naa ay télénovelas rek la ñuy la ñuy la ñuy la parce que yooyu rek moo waaw ñu ngi lay jaajëfal di remercier aussi sa intervention am na solo lool lool lool merci beaucoup. waaw ba léegi ñu ngi suñu micro trottoir ñu ngi fii nii ci euh, commune Yoff euh, ñu taxawaat ak euh, beneen soxna bëgg ko laaj question yi nga xam ne comme laaj ñëpp rek li nga xam ne moo lëmbee jamono ji di série infidèle soxna si nuyu nañ la. maa ngi leen di fay bu baax. waaw ginnaaw bañ la nuyoo ñu bëggoon la laaj question bii nii ndax yaa ngi seetaan série yi. Euh, bu dee yaa ngi seetaan série télévisée euh, biñ ci gën a ràññee di infidèle jamono ji gis nañu mi ngi lëmbee jamono ji ak euh, seen seen yu obsèques yi yi am léegi maanaam seen yi nga xam ni ay affaire sexualité rek la ñuy divulguer voilà ñu bëggoon laaj sa avis nga am loo ci apporté voilà internet di lay seetaan mën ci jàng voilà. ok d'accord ba concernant infidèle moom ñëpp ràññee nañ ne vraiment y a des actes yoo xamante ne c'est pas des actes nobles en fait te série yi léegi xale yëpp a koy seetaan il y a yoo xamante ne xale yi waruñu koo gis genre sexualité des paroles vulgaires yoo xamante ne xale yi waruñ koo dégg waa loolu moom c'est à éviter vraiment voilà. voilà dégg nañ li mu wax euh, ba tey euh, dañ lay poser beneen question euh, naka nga gisee jamono jii nii gars yi li ñuy prôné ci état bi la. wala parce que état bi waroon na ci mën a jël ay matuwaayam wala aussi bu nekkul état bi maanaam ci réalisateur yi la scénariste yi maanaam vis-à-vis ak euh, série yu njëkk ya ku ci mel ni Daaray Kocc ak yu Ousmane Sembène Djibril Diop Mambéty yow euh, nan nga gisee loolu noonu waaw absolument état bi am na ci part de responsabilité parce que am na yenn jëf yoo xamante ne nit bu ko jëfe woon état bi teg ci loxo wala vraiment mu indi euh, na lañ koy waxatee correction boo xamante ne ku ko gis lii ku ko gis dina xam ne lii bu ma ko defee ëllëg lii moo ma ciy fekk ak leneen vraiment loolu yëpp du am euh, loolu laa c'est à éviter daal voilà c'est à dégg nañ ko li mu wax état bi am na ci part de responsabilité voilà mënoon na jël ay euh, correction yu sévère maanaam ay sanctions euh, jëmale ko ci ñi nga xam ni mooy producteurs yi maison de produit voilà mu doon lu am solo loo xam ne état bi war na ci mën a bay waaram voilà léegi xam naa dañ koy dékkaat suñu micro rek laaj ko mu joxe mot de la fin voilà ñu tëjaale loolu. ok sëñ bi en tout cas na maa ngi rafetlu seen taxawaay et puis euh, di wax euh, mbooloo réew mi waa Sénégal ñu xoolaat seen bopp daal xoolaat seen comportement vis-à-vis des choses des faits. parce que bëgg a nekk nit ku siiw tamit euh, warul tax nga nekk di jouer des films yoo xamante ne euh, y a des actes yoo xamante ne xale yi waruñ ko seetaan loo xamante ne mën na tax sax ñu saaga ñu ñun sénégalais voilà c'est pas notre culture daal ñu Sénégal des gens respectueux la ñu xamee woon ñoo xamante ne du ñu sol solin bu bonn du ñu wax wax joo xamante ne du wax ju rafet vraiment war nañ xoolaat suñu bopp bu baax voilà c'est dégg nañ euh, ki nga xam ne mooy euh, soxna si li mu wax bu baax a baax a baax euh, maanaam préserver suñu culture maanaam li ñu amoon ci lu njëkk ñu ngi koy perdre suñu valeurs yi voilà mu doon loo xam ne képp kuy ndaw di ko suivre war nga ci mën a jëlee jël conseil yooyu noonu jëfee ko mu jëriñ la wala di ko jaajëfal moom tamit di ko ñaanal gudd fan ak weer aussi ak avancement aussi di ñaan tamit li nga xam ne moo nekk ci xolam maanaam pour état bi ñëw Euh, bay ci waaram ba mu mat sëkk ba nga xam ne scène yooyu noonu séquence yooyu noonu dootuñu ko gisati ci suñuy euh, télévision suñuy série télévisée euh, di ko jaajëfal baax a baax di leen wax merci beaucoup. waaw ñu ngi nii ci càppaandaw gi maanaam ci jeexintalu émission bi doon taxaw seetlu voilà ñu defoon benn micro trottoir fii nga xam ne mooy ci commune bu yoof voilà ci suuf point bi nag lañ ko doon defee gis nañ fi ay interven intervention intervention yoo xam ne. yu yu ñu yu ñuy rafetlu la voilà comme euh, tout sénégalais euh, ci jamono ji série infidèle euh, li mu fësal maanaam li mu wone ba ci réseaux sociaux yëpp mi ngi fay daw lu ci mel ni Facebook gis nañ fa Fatima Fatimatu Chérif gis nañ ci Juliette Ba lifestyle gis nañ ci Linguère Fadel Jabu Jabu Fadel voilà ñoom ñëpp def nañ intervention yu am solo wax ci li nga xam ne mooy série infidèle li muy proné ak euh, ba tey loolu yëpp mën nañ ne mën nañ euh, liñ ci liñ ci liñ ciy andi rek mooy euh, dañuy jël toor bi ñu jox ko ñi nga xam ne mooy scénariste yi scénariste yi ak réalisateur yi parce que nit ki booy réaliser bu dee bindoo ko sax scénariste def scénario ma war nga mën a xoolaat bu baax li nga war a réaliser parce que day terminer sa image voilà bu ñu defee comparaison bi ay jamono ca ginnaaw ay euh, daaray Kocc Baara Yego ak yeneen ak yeneen yu si mel ni troupe yi arco yi xool nañ ba léegi série yi jëlatuñu acte acteurs yi maanaam artiste comédiens yi ñi nga xam ne de nature lañ loolu lañ jàng dem ci arco yi jël arco Pikine Dakar waay mais defatuñ loolu mannequin yi la ñuy jël ak euh, animatrices yi Euh, teg leen suñu suñu kanam caméra euh, ñu di leen wax loo yoo xam ne wax yu vulgaire la voilà ñu koy ñaawlu ñu koy ñaawlu lool lool lool boo xoolee ay euh, am nañ suy dem ba naan yàgg na fi ay série Ousmane Sembène mais ñooñu ay film la woon te film yooyu noonu dañ ko doon def pour euh, ay festival international la doon dem lu ci bëri lu ci mel ni ay Carmen Gaye yooyu dañ ko dañ ko censuré woon voilà kon bu ñu jëlee exemple ci ñooñu parce que te ñooñu sax dañoo amoon ay euh, seen jeu d'acteur dafa dafa dafa dafa baaxoon dafa leeroon dañoo opté woon pour cinéma bi loolu taxoon ñu doon gagné ay prix yu bëri boo boo boo jëlee Ceddo bu Ousmane Sembène nga jëlaat euh, Kan Thiaroye Caaroy 44 nga jëlaat euh, lu ci mel ni euh, Carmen Gueye ak yeneen ak yeneen yee même bu amee yenn scènes yoo xam ne kii la sax euh, dañuy dañuy dañuy daawul daw maanaam ci suñu chaîne yi mais léegi te jamono jooju ak jamono ji bokkul boobu téléphone dafa jafe woon mais léegi téléphone yomb na internet yomb na ñëpp am ñëpp ñëpp am accès ci ci ci ci YouTube voilà xale yu ndaw ndaw. bu ñu ci defee moins de 16 ans gars yi ay ay xale yu am 10 ans sax ñoo koy seetaan voilà parce que seen parents yi tamit euh, am nañ ci part de responsabilité parce que parents yi du ñu surveiller seen doom xale bu ndaw toll ci jàng nga jëndal ko tablette wala nga jëndal ko téléphone wala ordinateur bàyyi ko noonu taala ko defal ko internet mu ci def lu ko neex voilà yaakaar naa yàqu yàqu bi foofu lay commencé gis nañ ci intervention yu am solo aussi voilà euh, soxna yi wax nañ gis nañ suñu papa wax na suñu benn yaay booy wax na mu doon loo xam ne ñëpp war nañ ci mën a jëlee jàngat voilà te aussi di ñaax aussi état bi euh, maanaam waa CNRA euh, ak ak waa waa waa waa direction euh, cinématographique voilà mu mu jël ci ay ay ay taxawaay parce que aussi Jamra def na def na def na ay trois plaintes voilà ñuy ñuy ñaan aussi ñi ñu jébbal plainte yooyu noonu ñu bàyyi ci seen waar ba mu mat sëkk sëkk sëkk ba mën a censurer li nga xam ne mooy série boobu noonu euh, Sénégal delluwaat ci delluwaat ci jàmm voilà yaakaar naa bu ñu ko defee def ay sanctions ak ay mesures yoo xam ne yu yu yu yu baax la ku mu dal Euh, bu beneen yoon di nga xool bu baax a baax a baax baax baax li ngay yëkkatiwaat merci beaucoup di leen jaajëfal chers internautes DS Produits SA di leen euh, ñaan ngeen euh, abonné like di commenter dañu yokk doole pour ñu mën a xam fu ñuy taxaw incha allah merci beaucoup